asalaamaaleykum ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal bu baax yéen ñi ni siifur si seen seen Omzo TV officiel technologie ñu ngi leen si jaajëfal bu baax a baax di lay fàttali rek bi dee yow gan nga suñ seen bi nga abonné da nga bës cloche notification bi bala ngay parti manqué suñ yeneen i vidéo dana ñëwaat si beneen nouvelle aspect rek naka ngay créer say logo professionnel logo yi xamante ne si ne logo yu yomb la te di nga ko mën a créer pour logo yu professionnel yu rafet si bépp tembooy def rek di nga si mën a créer saaru logo yi xamante ne si ne comme yi euh, boo xoolee logo yi ñoo ko créer nii def si design bi nii couleur bi nii tamit boo xoolee tamit boo xoolee arrière plan bi nii am na ay saaru lu mel ne saaru machine su nekk si ginnaaw mu nekk si arrière plan bi saaru logo yi nag leen ñëwoon la naka nga koy créer si application bi waaye yaa ngi gis. Euh, crées yooyu saaru thème booy kii rek euh, mën nga see créer sa propre logo ay logo professionnel yu rafet euh, man nga siy créer waaye yaa ngi gis logo yooyu li ñu wan naka nga koy créer gis nga waaw loolu nag dana ñëw dem Play Store ñu wan application bi naka nga koy amee pour si Play ak nu mu tudd waaye application bi moo nekk nii yow boo ñëwee sa bi Play Store rek boo tefee waaye eh, cliquer nii application bi moo nekk nii nii la tudd quoi lu ko gis léegi nag daanaka collé si suufu description bi yow heure boo si cliquer rek dina rediriger indi la fii pour nga mën ka télécharger si lu facile quoi léegi ñu cliquer si. waaye boo cliquer nii nag dina la indiloo application yu bëri nag waaye mais ñun boo xoolee application bii lañ si taamu muy créer une logo gratuite euh, professionnelle euh, ñu cliquer si application bi moo nekk nii te application bu fayable la boo xoolee à propos bi moo nekk nii application bi euh, millions de personnes ñu ngi koy utiliser woo xoolee date dernière mise à jour mu nekk mais 3 mai 2021 bi boo xoolee tamit en plus. ay millions de personnes ñu ngi koy utiliser en plus euh, application bi diisul si virgule zéro deux méga diisul tamit propos bi application bi moo nekk nii date kii bi moo nekk euh, premier août 2019 euh, application bi fiable te di nga si mën a créer say propre logo ay logo professionnel yu rafet léegi ñun nag installé nañ ko ba pare yow nag bu fi dee si da ñëw fii def comme nii ñu def da ngay def installé rek mu installé wu. léegi nag ñun télécharge nañ ko pare day ñëw def ouvrir dafay ouvrir ñu patiente bàyyi application bi ñëw voilà application bi moo nekk nii yow nag boo koy doog a ñun nag dañ si euh, duggoon ba pare ba autorisé ko pare moo tax ni mais yow nag euh, boo koy doog a téléchargé ba def offrir dina la am fu la indil benn euh, case bu xamante ne si ne loolu nag foofu bu la neexee yow sa logo ni bëgguma tudd si foofu nga fi par exemple ñun su logo Omzo TV officiel la foofu nag si fi mu ne page bi mu indi pour am loo fay dugal pour bind foofu sa tur nga fay bind rek wala ni nga bëgg sa logo tudd noonu nga fay def quoi duñ autorisé lii ba pare mais leen leen wax euh, bu nu avancé deen gis leen leen doon wax quoi voilà logo yi nag euh, moo nekk nii façon thème booy ju yëngu rek ak looy mën a def rek danga si mën a am fii sa logo boo xoolee ay couture ay musique ay business logo business te da ngay yëngu si wàllu business wàllu wala football wala lu demee noonu wàllu sport transport lépp bépp logo boo bëgg rek am na fi bi dee wàllu business euh, voie yi yaa ngi gis saaru logo yi tamit boo avancé woon logo boo si bëgg gis rek di nga ko gis waaye léegi ñin logo euh, ñin lu jëm si wàllu technologie par exemple rek dañu bës si more bi ñu bës avancé mu indi ñu yeneen i logo léegi dañuy patienté waaye buñ patienté logo yi moo nekk nii léegi ñun boo xoolee logo boo xam ne dañ koy saaru abrasé comme ça Omzo TV Officiel rek léegi ñun bu nu neexee mën nañoo avancer ba gis euh, o rek wala kii bu rafet rek ñu mën see modifier suñu logo waaye ñu avancé logo boo bëgg rek moo ngi fi yaa ngi gis léegi par exemple ñu ñu jël o bi par exemple rek Omzo yi ñu jël o bi pour rek. Euh, ñu euh, patienté bàyyi mu ñëw voilà gis nga li ma leen doon wax boo xoolee lii yéen gisu leen ma bind ko fenn mais yéen bu leen di doog a application bi dinañ leen benn pass boo xamante ne si ne day wax ngeen bind fa dara loolu bu la neexee mën nga faa bind sa wala ni nga bëgg sa logo bi tudd noonu ngeen loolu foofu ngay bind quoi leen ko autorisé woon moo tax moo tax indi loolu ko mais yow booy doog a ibbi application bi dinañ la indil kaas boobu pour bu la neexee ñu logo bi tudd moom moo fay bind bu la neexatee mën nga faa benn bind dara tip mais yow par exemple rek nga bind fa loolu même lii boo ko fay bindee après bu la neexee mën nga kaa modifié waat léegi pour nga modifier ko da ngay cliquer nii rek après nga ñëw fii nii si crayon bi nii euh, mais ñun lii bëgguñu koo modifier dañ koy bàyyi mais dañ lay jox exemple rek yow boo ko bëggee modifier boo tegee nii rek nga teg si kaw nii bu mu indileel nii da ngay ñëw fii si crayon bi nga def modification bi léegi ñun nag euh, bëgg na koo modifier léegi tamit bu fekkente ne taille bi dafa rëy nga bëgg a wàññi nga bës nii nga wàññi ko bu la neexee tamit eh, nga yokk ko nii léegi dañ koy avancé nii daam lu si bëgg a dolli quoi par exemple Omzo TV officiel eh, technologie léegi ñu cliqué fii si tee bi pour fi ñu écrit eh, technologie ñu def agn yi rek par exemple mooy ABC bi technologie def doon bi léegi boo xoolee moo nekk nii waaye bu neexee yaatal ko bu neexee ndawal ko léegi ñu def ko nii ñu waaye pousse ko ba mu xaw a wàññi ko plus bu la neexati mën ngaa téye fii nga xëcc mais bàyyi ñu def ko nii wàññi yokk nga xëcc ko ba fi nga ko bëgg a teg da leen jox exemple rek mais yow. yaa xool fi nga ko bëgg a teg ci kii bi rek nga teg ko fi comme ça Omzo TV officiel technologie buñ ko abrégé rek léegi buñ ko abrégé pare léegi bind bi bu nu neexul ñu boo ko bëggee sensé tamit nga ñëw fii nga sensé bind bi par exemple voyez ñu xool ban bind lañu war a jël fii bu rafet yow daal yaay xool rek yaay yor nga sa bët di xool ba xool bind bu xamante ne si ne neex na la bu neexoon tamit euh, ñu bàyyi ko ñu wàññiwaat ko tuuti ndax mu xaw a bi léegi ñu bàyyi ko noonu léegi buñ nga bàyyi noonu dañuy génn ñu sensé tamit euh, bind bi tamit euh, bu la neexul nga ñëw fii nga koy sensé am soo TV officiel bi ñu bëgg a sensé bind bi par exemple. waaye ñu xool bind bu xaw a ba tey boobu plus erreur yaa xool bu si neex rek bu neex tamit ñu bàyyi si bii ñu xaw ko yokk tuuti moom it ba mu xaw a ni wutee ak bee voilà waaye yaa ngi gis bu neex tamit euh, couleur bi tamit bu la neexee man nga ko changer mais couleur bi comme que modification moom boo koy def day xaw a couleur yi day xaw a nuro pour mu rafet quoi léegi ñu sensé bi couleur boo ko bëgg a sensé nga ñëw fii couleur vaille couleur neexee ñu xool fii par exemple bi xaw a nekk zone bi suñu foosé xaw a apparence ak kii bi léegi baax na nii waaye léegi bu la neex tamit logo bii nii yow yaa xool fu la neex bu la neexee nga gën kaa xëcc mu rëy bu la neexee tamit eh, nga ndawal ko bu la neexee nga gën kaa xëcc ba mu mag waaye yaa ngi xool sample léegi bu la neexee tamit eh, en plus icône ñu xool ban icône lan si teg kilika fii tamit yaay xool waaye eh, ñu ngi jëm si wàllu technologie en plus technologie ñu xool xamante ni si yow yaa xool fii rek thème booy yëngu rek boo ñëwee fii di nga ko fi gis ñu dugg fii ba am daan mën a gis bu mën a méngoo ak loolu ñu def ko si surtout rek pour exemple la yow nag boo dem bay modifier yaay xool modification bi la daaxal ak bi la gënal nga def ko si waaye bu neexee ñu cliquer lii mel ne saa ordinateur ñu patiente bàyyi mu ñëw mu chargé wu ñëw voilà mu bàyyi yaa ngi gis instant bi affaire bu dugg na bu la neexee nag euh, ñu def ko transparence fii moom pour yokk bi la ak wàññi bi rek mooy kii bi machine bi nga yokk ko nii waaye yaay xool ba sa niveau de fu la yem rek léegi boo ko bëggee transparence maanaam ba lii nii saaro machine bii nii di feeñ tuuti tuuti si biir maanaam dina feeñ mais du feeñu beex léegi da ngay nii nga teg si nii ba ba mu carré wu nii nga ñëw fi transparence nga cliquer si nga wàññi niveau bi wàññi ko transparence ba mu xaw a yem tuuti muy feeñ tuuti rek la nga wàññi voilà yaakaar naa baax na ni ñu léegi léegi arrière plan bi leen war a changer mooy couleur bii nii léegi dañuy ñëw fii si bg bi cliquer si su cliquer dina indi fii ay couleur bari bëri bu ñu neexee ñu def ko vert ñu xool rek boo xoolee weex bi tamit daf ko indi nii mais taxul mu nice si loolu waaw ñu cliquer waat couleur yi moo nekk nii yow yaa xool choisir couleur boo bëgg rek par exemple couleur boo bëgg wala en plus nga ñëw fii ci coordonnées bi fii tamit euh, dinga fi am ay anglais yu bëri bu la neexee ngeen def ko nii nga ci en plus si train bii nii rek anglais bi la lay diriger. yaa eh, yaa xool ni nga bëgg mu mel ko rek waaye loo gën a arrêté gis nga waaye moom ay couleur multiple la lay booleel ñeexa nga xëccaat ko tamit oh, xëccaat ko tamit ba nu mu nu mu la neex nag nu la couleur bi neex rek yaay choisir daal noo ko mën a modifier rek ba mu neex neexi nga dugal voilà moo nekk nii daal voilà sus par o dal leen di wañ yoon bi rek yow yaay xool say yan modification ngay def rek ba mu ak euh, logo boo si bëgg rek dinga nga ko mën a am boo pare nga cliquer fii si flash bi pour nga enregistrer ko wala tamit nga def yi soo fii bu la neex pour enregistrement bi nga def ok am download bi nga ñëw fii pour télécharge bu dem fu mu gàtt autorisé mu dem suñu galerie voilà léegi télécharge naan ko ba mu dem suñu galerie léegi bu neex mën na surtout rek dañ lay wax na logo boo si bëggee créer rek man nga see créer si ay logo personnel logo defes app moo nekk ni logo boo si bëgg mën nga see créer logo business dangay ñëw fii rek rek dina la indil foofu ay yeneeni logo dinga ko fi gis waaye boo si cliqué woon dina la fi gis boo yore application bi rek te xaw see sob tuuti rek logo boo si bëggee créer di nga ko si mën a créer quoi ay logo professionnel yu rafet nga xool lii lépp bis thème bi ngay yëngu logo bu mu xaw a méngul tuuti rek nga def say modification coloré ko ba mu nice te di nga am logo yu rafet waaye ñu génn dem suñu galerie xool logo bi ñu sa enregistré woon ba mu dugg na am déet

ñu bàyyi mu page bi chargé wu ñëw yaakaar naa logo yi fii la nekk ñu cliqué fii patiente bàyyi mu page bi chargé wu ñëw mooy logo bi si créé woon wala logo bi enregistré nañ ko ñaari moo nekk nii euh, logo bi lan si créé te boo xoolee moo nekk nii si logo bu rafet la macha allah ñaari yoon lan ko enregistré moo nekk nii voilà suuf na rek daf doon wax yoon bi neen koy defaree quoi pour logo professionnel. di leen wax na rek euh, astuce bi foofu leen si yeme yow di wax na rek bi day gën nga suñu seen bi nga abonné te bés cloche notification bala ngay bañ ci manqué suñu yeneen vidéo di leen dig daje à la prochaine vidéo incha allah